fi ñëw joxe ay carte quoi daa ne après euh, samedi wala dimanche dañ fi ñëw après ñi dañuy seetal dëkk bi quoi. farawu Grand Yoff ni mu ko waxee woon noonu la ko defee lam ci namm moo di daal di seetal barab yi mu doon li nga xamante ni nag du yomb ndaxte fii marché la. ca marché bu Grand Yoff nag ñiy faral di lal ñu bari nag liggéey yu naan nag ci tiitaange la ñu amal seen liggéey. lépp loo gis tamit dañ koy waxtaane parce àdduna lépp teraanga la. man dañ maa yàqal samay taabul ñetti taabul yëpp lañ tamate. ñu toog nii di xoole quoi xam nga loolu métti na si borom kër quoi. ca Patte nag mu mel nii coow dafa naroon am jaaykat yi fa nekk nag mere ma Diop Diop. mais le treize passé ba tey ñuy wax ak yow nii gisuñu lu ñu def gisuñu lu ñu wax lu dul jaaykat yi bu kenn lal bu kenn lal bu kenn lal. ku teg bagage ñu jël ko. di ko yóbbu ay fourrière parfois ñu sàcc say bagages. lu tax ñu daal di leen fiy jëlee. dañuy xool ñu gën ñu jaay mën a jaay ñuy dox mën a dox. wante nag ñu bari dañoo jàpp ni délai bi ñu leen joxoon dafa gàtt. 30 minutes sax defuñu ko gars yi ñëw seen seen si seen métti nag daanaka ñeneen di ko rafetlu ñoom nag jàpp nañ ñi lu yàgg lañu waroon amal li ni mel. jaaykat yi ba léegi mënuñoo xam lu tax ñu bëgg leen jëlee ci yile barab mu ñu sukkandikoo ci ñoom nag événement bu ñëwee juróom benn junni la ñu daal di fay mètre bu nekk teg ci bés bu set ñu daal di dagg ticket juuti bu fanweer ñenn ñi nag jàpp ni coowalu politique moo ko waral wante nag mairie bi di ko dàq. pavé ko def ay lamp yu yi di woote ngir rek ñu xool fuñ leen wutal mairie bi nag ne du leen dig li nga xamante ni nag du ko mën a def lu ci mënti ne nag ñaari partie yëpp pare nañ ngir daal di amalay waxtaan.